sen Sensen, Rumi venka TV. Gimari saja mamlayu agresenol yeren goy stel tubu yeren ngeen gis li mu doon wax mu mel du egg sax waaye gis ngeen ne ñu attaqué ko foofee mu doon loo xamante ne métti la ci rawatina nag euh, ab sénégalais buy nag euh, présenté askanam euh, foofee ca Togo ñu jëf di ñaaw ji yéen a gis moom honorable député ji Mary Teuw Niane ngeen ko ji ñu ko def ko gis. gis ngeen ko instant bi nag dafa nag hospitalisé yéen a gis Guy Marius Sagna mi ngi noonu ngir nag euh, jëf yi nga xamante ne def nañ foofu loolay waral mu daal di nag jubali euh, hôpital ngir mën xool li nga xamante ne moom moo di santeem yéen a ko gis noonu daal mu doon lu doy waar loo xamante ne euh, na ci ki nga xamante ne mooy honorable député Guy Marius Sagna lii nag mu mel ne kenn yaakaaru ko woon ci Afrique rawatina nag député bi nga xamante ne nag yow présenté nag Afrique daanaka di def discours yu am solo mu mel ne discours yi sax moo waral ñu daal di koy sipsonné ndax kat gis nañ discours yu tàng jër lay def moom honorable député Guy Marius Sagna waaye tey ji mu mel ne wax ji nga xamante ne mi ngi ko doon wax eggul sax ñu daal di koy nag attaqué ba gaañ ko ba jamono yi ko gis ngi nii ci lalu hôpital yi ngir nag mun a xool wér gi yaramam métti na lool ci Guy Marius Sagna doy na waar lii nag euh, yoon war na cee àddu war na cee àddu lool Guy Marius mi ngoog yéen ko gis ngi nii ci lal bi di xool li nga xamante ne moom moo di wér gi yaramam metti na daal li ñu ko def nii metti na Sénégal yëpp nag rawatina ak africain yi yéen a gis Guy Marius